yàgg yàgg yàgg amoon na benn rôle bu décisif bu mu joué ci économie bi. Mhm. parce que lu mu dee dee def naa su ma basé woo ci statistique yi lu mat six cent mille personnes ñi ciy daan seen doole ci wàllu napp gi mais Pierre Simon yàlla dafa def man am naa chance dem ba Conakry. Mhm. ci foofu noonu fekk fa sénégal yi fay nekk nappkat yi. donc xam nga kii Guinée-Bissau lay wax mba demoon tey Conakry cas yi nii mënoo xam ñaata la. Mhm. donc moo am Guinée-Bissau partout. tey ndeysaan nappkatu sénégalais fu nekk la ñuy dem pour am ressource bi. léegi bu defee am ay jafe-jafe la fay fekk te foofu tam malheureusement boo demee même cas bi la da ngay gis ne en d' assistance assistance bi ñu leen waroon des na des ñoom dëkk yi ñuy dem noonu dafa am benn xalaat bu ñu daan andi mooy aire marine protégée yi ak repos biologique xam nga fexe ba ñun tamit géej gi ressources yi ñu am fii mu des fii. xam nga mécanisme bu ñu ko doon ànd itam doon na dimbali nappkat yi. léegi mm. nguur gu bees bi loolu la la ci xalaat fan la aire marine protégée yi ñaata moo am. ñaata lañ prévoir def. ndax dina yan lan mooy léegi mécanisme pour repos biologique période de repos biologique yi maanaam lan la ñuy def ba vraiment ñu aar suñu géej gi bu ko defee xëy na suñu nappkat yi li ñuy demee bitim réew di jéggaani yëf yi ba ñu leen di jàpp ak ñi am ay jafe-jafe ñu mën a des ci réew mi boo xoolee Mauritanie bi nekk suñu wet gi rek ñoom côté boobu dañoo def ay effort mhm. en terme de repos biologique bu defee ressource bi yor seen i seen i si seen i ndox bu ko defee seen i nappkat xëy na du am soxla feneen mhm. nguur gu bees gi nii ñoom ñu ngi leen di xaar foofu noonu mais booba tey comme ni ma la koy wax euh, yëf yi ay wax la te wax feesalul buus ba tey mm-hmm. gisaguñ daal un schéma clair mm-hmm. euh, d'appui au secteur euh, sous secteur de la pêche yàlla na yàlla nit euh, doomu Sénégal yooyee nga xam ne teg nañ leen loxo ca Guinée Bissau di ay nappkat ñu des ba léegi ci wàllu napp gi nan la ñuy mën a def ba ca Thiaroye sur Mer jafe-jafe bañ a am ci nappkat ya fa dëkkee ak ñiy ñëw di campagne si comité local de pêche artisanale bu pikin ànd ceeg ñi nga xam ne ñoo nekk ca quai de pêche bu Thiaroye sur Mer toog nañu di waxtaan waxtaan wa yemul ca ñoom ndax yaatal nañ ko ba ca kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ca gox ba ñuy yor kaaraange gi ba ci sax nappkat ya jóge ca yeneeni gox ñëw dëkk si foofee la temps que campagne bi jeex ñu déglu ci leeralu Pierre Mboup di président nationale yu CLPA yu senegal dénk kàddu yu nu sàbbalde lii nag vraiment pré campagne la campagne boo xam ne day waaj a ñëw ñuy prévenir li nga xam ni dafay ñëw ëllëg parce que ku ne xam na ni pêche ak conflit ñoo ànd. Mhm. te bu conflit ak pêche àndee bu mbir dee ñëw da ngay toog nga waxtaan ak ñi nga war a waxtaanal. kon damay lancer benn message au niveau national muy képp koo xam ne da ngay campagne si jaaro yi boo ñëwee nga respecté li waa dëkk bi bëgg ci jàmm bëgg nañ ku ñëw liggéey am xaalis dem ñibbi waaye bëgg nañ tamit ku ñëw nga respecté dëkk bi parce que dëkk day am kilifteef dëkk bi am na ay kilifa. wala loo fi bëgg a def wala luñ ne fi teg na nga ñëw ci ñooñu nga waxtaan ak ñoom déglu leen boo fi amee problème waxal ak ñoom déglu leen. ñoom ñu jéem a résoudre sa problème kon président KDPES bi na jël ay responsabilités am ci liñ ko dénk mooy infrastructure yi mais coordonnateur CLPA bi ak président prévention de conflits na ñu jël seen responsabilité ci liñ leen dénk parce que ñoom lañ dénk dëkk bi dëkk boo fa ñëwee da ngay respecté li waa dëkk bi wax nangul leen li ñuy def nangul leen tamit li ñu bëgg ci dëkk bi loolu mooy indi wàññi coow kon idée bii ñu def vraiment dañ leen ci félicité ñoom équipe bi yëpp dañuy des ba léegi ci wàllu géej gi ak jafe-jafe yi nga xam ne mu ngi koy indi ca waaxu Saint-Louis ginnaaw bi géej gi tàmbalee di lekk lu bare bare suuf si ay établissement scolaire maanaam ay daara yu ñuy jànge jege lool euh, géej gi lu ci mel ni école xaali Ousmane Gaye ak école Ousmane Soumaré ñoom ñaari ñëpp daanaka euh, géej gi mu ngi leen di menacer bâtiment ya euh, tàmbale nañoo yàqu rawatina nag ba mur de clôture ca boppam yàqoo ba xaw a sore situation la bu tax ba ay. askan foofe ca Ndar mobilisé wu rawatina ab kuréel gu tudd genre équité développement wu Sénégal ñëw taxawu école yi di fa jëmbat ay garab ak yeneen i mbir ca Ndar Babacar Niang jëmbat ay garab ci biir lekkool yi ngir gën leen mën a taaral waaye tamit fexe ba mbir mi mën a xeex lépp lu jëm ci érosion côtière loolu mooy mbëbatu association bii di GET genre équité développement Sénégal te kii di Rokhaya Niang di directeur exécutif bi. ginnaaw bi ñu waxtaanee ak suñu groupe école normale bi ñu ñëw seet si leen mais bi ñu leen seet see li ñu njëkk xalaat mooy reboisement parce que école bi amul garab te dafa bëri naaj boole si xale yi du ñu am fu ñu nekk ñu proposer ñi booru mur bi nga xamante ni dafa sës ci géej gi dëgërul te ay kër fa nekk te kër yi à tout moment géej gi mun naka ko lekk. directeur école Xaali Ousmane Gaye ak équipe pédagogique bi ñoom fësal nañ ñi nag dëkkuwaay yi ñoo jël palaasu garab yi tey nag ñu leen fi yëkkatee loolu gën a favoriser érosion maritime bi. journée bi am na solo boo xam dafa fekkoon mu nekk école la boo xam ni dafa soxla woon dimbal bu baax a baax présidente JED bi jànge ci école bi gis loolu mu metti ko lool xale yi bu ñu génnee récréation duñu am fu ñu amee kër yi ci école bi la jëm moo tax ñu def ci ay filao filao ku ne xam na njëriñam day fixer suuf si ba nga xamante ni tey bu demee ba màgg lu ko fi fekk tamit na ngay dem. ñu ngi siy gërëmaat encore association JED ak partenaires yi ki ci dimbali yëpp. mu nekk bésu proposement jëmbat garab boo xam ne na tax na waxtaan yu am solo am na ci diggante élèves yi fi jànge woon enseignants yi parents d'élèves yi partenaires yi ak volontaires yi ñoom ñëpp rafetlu nañ nag ci wàllu campagne électorale bi ñu ne jëmee ci élection législative anticipée yu fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre atum 2024 coalition sàmm sa kàddu mi ngi woon démb ci Carabane ci département bu Vélingara laata muy dem commune bu Kolda tête de national bi nag Barthélémy Diaz ak mboolem leader coalition bi ñoom ñëpp au complet euh, dem nañu euh, def euh, Carabane ci biir capital bu Fuladu di Kolda Carabane bi nag askanu bare bare ñoom ñoo ko doon topp Thierno bokkum yoroon kàddu bés bi euh, di sàkku nag ñu gàntal pexe Ousmane Sonko mi ne euh, bu yeggee assemblée nationale moom Thierno bokkum dafa gis ne coup d'état institutionnel la fi bëgg a def Alassane Balde ak El Hadj dooreeku ca diwaanu Tambacounda caravane sàmm sa kàddu def escale nag ca Vélingara di ab département ci diwaanu Kolda laata rek mu wutali Kolda commune ci buntu dëkk ba sax la mbooloo mu takku daan leen teeru comme ni ñu ko waxee. noonee ñu daal di wutali ci commune bu Kolda ñu mën ci ràññee usine coton Sare Moussa Bantangel Demba Doumassou ak ñoomin seen caravane bu ni mel nag ñu daat koy jeexalee ci garab Moussa Molo bi nga xamante ne nag symbole la ci boobule dëkk ci foofe sax la Thierno Bocoum daal di yëkki kàddu jëmmale ci askan bi laataa mu leen di xamal ni Ousmane Sonko am na lu mu namm lu baaxul ci réew mi su fekkee rek jox nañ ko majorité ci bile assemblée nationale. sewuñ la majorité pour sàmm sa kàddu et l'intercoalition. ndax loolu dina tax ñu régler problème mu Sénégal loolu dina tax ñu wàññi Sénégal si yoon bii mu jël nga xam ne baaxul loolu dina tax ñu déjouer le coup d'état bu ñuy waajal parce que am na ñu bëgg a bëgg a aakimoo assemblée nationale pour def coup d'état te ci caravane bi jaar ak askan bi daan leen bàyyi xel ñu ñooñee moo xam Anta Babacar Pape Djibril Fall Cheikh Tidiane Dioum ak kii di Barthélémy Dias daal di saafonte ak askan bi waaye nag daal di leen présenté li nga xam ne ni mooy seen spécimen ngir rek ñu jox leen ndam ci l'élection booba waa coalition jàmm ak njëriñ ña nga woon ca diwaanu Kédougou ay militant ak soppe ñoom ñoo leen fa dalal eh, ca bopp Amadou Ba mi sàkku ci kilifa yi nekk ci nguur gi ñu taxaw ci jafe-jafe wutum or bi nga xam ne indil na jafe-jafe yu bare bare ña dëkkee ca goxu gu ak li ko wër muy sàkku nag ñu yemale mbooleem gox yi ci doxalinu réew mi Pape Mante ak Babacar Sow leader bu coalition jàmm ak njëriñ mbooloo mu takku ñoo ko dalal région bu Kédougou ak ay ressources am loolu tax na Amadou baax di woo nguur Sénégal lekk ñu ngir jël seen matuwaay ngir or bi ñuy ut ci boobu les zones. yéen a ngi nekk ci benn région bu difficile mais région bu am potentiel bu yaatu. gis nga 2017 2018 problème mu orpaillage bii ñuy wax ci la ci ANSD njëkk def enquête man mi ma leen ko santoon. ñu xam ni ñoom ni liggéeyee. mën naa yàq lu bari ci ndox mi yàq lu bari ci dund bi heureusement je vois que le gouvernement ñu ngi ci bàyyi xel mais maa ngi leen di fàttali am na ay rapport yu disponible ñu ngi ANSD Amadou baax def escale sa Saraya di sàkku ngir nag ressources yi ut foofu ca Kédougou ña fa yeewoo mën di ko jëfandikoo quand on parle de désenclavement c'est beaucoup de choses ce sont des routes de bonnes pistes de production. Mais aussi, c'est l'électricité, c'est le téléphone, c'est l'eau, c'est toutes les commodités qu'on peut trouver à Dakar qu'il faut avoir ici à Saraya. C'est ça l'équité. bu ñu sukkandikoo ci Amadou Ba muy xamal ni coalition jàmm ak njëriñ bés bu nekkee ci assemblée nationale sénégalais yi ñoo ko fay tax toog ci noonee muy rendre hommage bu baax a baax dem si yàlla amaat soxo cer na Diop mooy ca diggante Kédougou ak euh, yeneen gox yi nga xam ne yenn coalition ñu ngi koy euh, ñu ngi koy visiter rawatina Vélingara ak Kolda euh, takku wàllu ak sàmm sa kàddu wala bokk jàmm ak njëriñ ak sàmm sa kàddu dafa mel ni même combat bi la parce que seen benn adversaire mooy ñi nekk ci nguur gi di waa Pastef. waaw jërëjëf sëñ Pierre moo xam nga souvent élection yi dafa am lu ñu tuddee l'urgence démographique. Hmm. mooy lu ko dalee diggante Dakar Thiès ba Diourbel. nga xam ne foofu daanaka cinquante pour cent électeurs yi foofu la ñu nekk. Mhm. loolu nag souvent moom mooy gën a attirer presse bi ba dañuy fàtte zone bu mel ni Tambacounda. Mhm. alors ko zone boobu tey dafa nekk benn enjeu bu mag. compte tenu de plusieurs facteurs qui s'imbriquent. Mhm. Euh, boo xoolee tey euh, ak actualité bi fa xew ñëpp foofu Bougane Gueye Dany lu ko jiitu ñu affecté fa ay magistrats. dafay symboliser nguur gi nii euh, benn genre luy xeetoog mépris. bu mel ni moom la ñu xaw a am parce que acte boobu man dama koy déploré ba tey naka nga mën a jëlee ñetti magistrat nga affecté euh, ci benn coup benn mouvement foofu Tambacounda loolu dafa am loo xam ne nii dafay tax xeltee daal moo tax ma du ma leen méprimer da nga xaw a xeetoo hmm. euh, Guy Marius Sagna sax boo xoolee mosoon nañu ko affecté Tamba mu ne moom du ko rejoindre parce que tellement dafa am benn perception bu ci Tambacounda alors que léegi nag ñii li def nii pour man c'est stratégique que dafay gën a Tambacounda ak reste du Sénégal bi parce que boo xoolee zones yi ñu visité nii euh, d'abord boo commencé ci coalition sàmm sa kàddu donc il a fait Tambacounda ak ay Kolda ak yooyu mais est-ce que xam nga mooy dama koy fàttali ko. mooy zone uh-huh. pauvreté bi gën a affecté tey. Uh-huh. am na classement bu agence nationale de la statistique et la démographie génn ci weeru G bee ñu génn kese. Uh-huh. bu 2024 bi donc. donc ñuy wax ne ci classement bi boo xoolee dëkk bu gën a pauvre Sénégal mooy Kédougou avec 67 5 virgule 7 pour cent. après Sédhiou topp ci. donc mooy fi ñu demoon xam nga ñoom 64 pour cent Tambacounda ñëw 62 pour cent Kolda ñëw 62 virgule 5 pour cent. donc euh, voilà Tambacounda 62 virgule pour cent boo jëlee affaire insécurité alimentaire tam euh, boo xoolee dëkk bu mu gën a impacté tey mooy kon daa jël deuxième après Kédougou ñëw après Sédhiou ñëw donc ay zone la yoo xam ne dafa mel ni gouvernement bi daf leen délaissé. te il faut ñu bàyyi leen xel. te ba pourtant dëkk bu mel ni ko par exemple dafa bëri ay ressources. dafa bëri ay ressources yoo xam ne am nañ fa. voilà ay fer ay or xam nga yu bëri ñu ngi foofu noonu. donc malheureusement li muy nekk corde d'abondance yi fu gars yi xaw koo abandonné je crois que tey ci législature bi nii parce que ñu on parle beaucoup de affaire constitution affaire droit. Mm. mais war nañu am benn contrat de législature benn offre de législature vraiment orientée sur l'économie. loo xam ne dafay xeex pauvreté loo xam ne dafay xeex affaire insécurité alimentaire loo xam ne en tout cas dafay tourner ci développement. Mm. et que foofu noonu boo fi ñu dem noonu c'est après li ñu fa wax. dégg nañ ko et tout tourner autour de reconnecter comme ni ñu koy waxee région yooyu Kolda ak Tambacounda nga xam ne ce sont les régions les plus touchées par tey la pauvreté et l'insécurité alimentaire reconnecter ces régions là au reste du Sénégal moi je crois que c'est bien en attendant ñiy xaar nguur gu bees gi la la ñuy réserver pour région yi parce que ba fii nii comme ni ma la ko waxee li ñu <laughs> liñ ci leen ils se par mhm. d'un seul mouvement ñu affecté fa trois magistrats yoo xam ne ñu bëri dañ ko percevoir comme sanction loolu je crois que c'est un précédent qu'on ci histoire ci anal en tout cas Sénégal jërëjëf mhm. euh, lu jëm nag ci coalition takku wàllu démb ñu ngi woon ci département bu podoor diggante Njambe ak bokki Dialoubé jaare ko ayralawo askano génn nañu teeru bu baax a baax kilifa yi nga xam ne ñoo nekkoon ci boppu caravane bi daam Ndiaye ak Mohamed jaw ñu ngi woon Podor coalition takku wàllu Sénégal bokk ci intercoalition sàmm sa kàddu ñi ngi wii di amal seen ab campagne ci diwaan bu waalo Ross Béthio la ko njëkk a dooree honorable député Soxna Mbodj ne. bu mu ñëwee daf fekk boru treize milliards mu ni béykat yi yërëm naa leen sonn na te dama bëgg Sénégal am autosuffisance en riz te bu ngeen bëggee dem il faut mag jindil leen.